sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare sëñ Aziz sama may sunu mbër baare sang baay Madu Lamin Madu Lamin baare asalaamaaleykum ñu del siwaat rek ci jataay bi ñu toftal ci jataay bi génn ci jëwriñ jooju nga xam ne moo fi jóge léegi ñu koy wax sëñ Cheikh Diouf ak sëñ Motala jóge ba Luguriya ci janwa ñu toogaat nag koo xam ne moom yaakaar naa bu ngeen jàkkaarloog moom ci écran bi dana bari ñu ko xam tudd sëriñ Moustapha Ndiaye jóge ba Bergamo ci Singoña bokk ci jëwriñi section jaawartullah muy lu am solo nag loo xam ne nii taarix dana ko bàyyi xel wala léegi te taarix dana ko bind ñuy ay ndaw yoo xam ne wax dëgg yàlla ku yàgg jëflanteeg ñoom danga xam ne li seex Cheikh Mamadou Moutala digle woon ñoom ñi ngi ci di góorgóorlu kon sëñ Moustapha ñi ngi lay dalal fii ci télévision Touba Monde bi ci bis bu historique bi nga xam ne ki nga xam ne mooy sëtub Cheikh Mamadou Lamine Bara ñu koy wax sëñ Abdoul Aziz Mbacke ibnu sëriñ xaadam xaadim mu soxna awa ba mu doon bis boobu yàgg na ko fee def ku ci mësul ñëwit dégg nga ko ndax daa nga gis ne ñi ngi ko tàmbalee woon ca Prial Pino daan ko fa def muy màgg ba yàlla dogal ñu indi ko fii nga xam ne nag tey mooy kër sëñ Touba gi te heure bi daa wax nañ ne biñ ko fii def daanaka nit ñi amuñu fu ñu jullee ñu def fi ay bernde jàng fi alxuraan jàng fi ay xasida ba palaatooy yii nga xam ne nag moo ci topp Euh, muy bii nga toogee topp ci ak euh, xasida yooyu ngeen dégg ñu di ko jàng ci suuf euh, kon sëñ Moustapha gannaaw ba ñu la dalalee boo nuyoo ba noppi nga leeral nu taxawaay bi ngeen am ci kër sañ Touba googu nekk ci Senghooñ yi nga xam ne yaakaar naa ne moo jëkk a juddu gi waaye ñoo bokk menn at muy kër goo xam ne si ay nit a fa nekk yoo xam ne ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla ñu xam leen ci ku ci mel ne Baye Abdou Diop ak ñu bare ñoo xam ne si xamante nañ ñoom. ñuy liggéey liggéey bu rëy kon sëñ Moustapha anal gannaaw boo nuyoo lan nga mën a leeral ci taxawaay boobu ngeen taxaw ci section Jaawartullah boobu nga wax ne Cheikh Abdoulaye Mbacke wala sañ Saliou moo leen ko joxoon tafadal maskura waaw ah, waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen baax sëñ Moustapha di mbokki taalibe yëpp di di tuubal ñëpp di képp kuy dégg suñu kàddu rek ci ci monde bi yëpp rek daal hmm. diaspora bi ci senegal fépp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaanal bu baax a baax suñu wasila yi di suñu suñu sëriñ di suñu wasila hmm. sëñ Abdou Aziz Mbacke Xaadime Awa Ba hmm. bintu soxna May mu sëñ Abdou Xaadar hmm. moom de set ci ci ñaari wàll yëpp sëñ Abdou Xaadar ak sëñ Baara moom Lamine Baara ñoo ko seq loolu ñu naan bete bete mooy mooy sëñ bi moom nag moom mu mënuñoo wax ci moom lu bari ndax ndax xay na bëgg géeg ak ak ak ni mu ñu dimbalee ci moom moo tax waaye ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaan mu yàgg fi lool te wér ba liggéeyu maamam bi lim ci bëgg lépp mu defee ko ni ko bëggee te ànd ceeg tawfiix ànd ceeg ngërëmal sëñ bi mhm. ñu yàgg koo fekke yàgg koo yàgg a fekk taxawal bis mhm. nag ñooy eh, jëwrin eh, Touba Bergamo mhm. yeetu ko sëñ Touba ga foofu lañ dëkkee Jawartulaa Bergamo di eh, maa ngi maa ngi wax ne sëñ bi bi mu koy taxawal 2000 2015. waaw 2016 lañ fa lañ fa. 2015 section Bergamo. Mm-hmm. ñun ñoo jëwriñ ji waaw. Mm-hmm. ba léegi euh, mbokk taalibe yi ñu ngi ciy ànd di dox. Mm-hmm. di ci nab nab yi donte taxu ñoo bari lool waaye ñu ngi ciy ñu ngi ciy ànd. bis bu ñëwee ñu ànd waat waa Touba Diawoul la Brescia ànd ñoom ci bis ci lépp rek. ñu mm. ànd ñoom ci lépp ci bis bi. Mm. comme ni ko suñ bi waaw di dooli waxaan na ñun nag euh, daara ji nekk waa Jawatulaa hmm. ji nekk euh, Koungheul hmm. fële ca daara ji moom fële ca côté Koungheul hmm. ñun ñoo yore ñun ñoo yore wàllu kii ba euh, ka fay jàngale lañ koy lañ koy kii ñun ñun la ko sëñ bi sase ñun Touba Bergamo chaque weer ñun ñoo koy dajale ne ko ka fay ka fay jàngale ka fay ka fay kii ca daara ja ñun loolu ñu sëñ bi sase waaye dañuy ànd ak waa Jawatulaa Berg Brescia tamit bis bi ñu ngi ànd ak ñoom ci ci lépp fànn yëpp rek mm-hmm. waaw ah. waaw bis bii nag moom daa yàgg lool mm-hmm. man maa ngi fàttaliku 2023 cee pré alpino boobu ak Dakar laa fi mm-hmm. ren yaakaar naa 2023 20 ans la kon am naa 20 ans ci réew mi boobu man sama papa laa fekk si woon ma ànd ak moom ñu dem fa boobu ba léegi ñaar fukki at yaakaar naa du ñaar fukki fan boobu ba léegi chaque année dañuy gis ne day gën a euh, mucc ayib day gën a yaatu day gën a comme macha allah comme ba lii fi am nii tey muy plateau di wax liggéey bi ni muy ni muy ni muy ni muy kii yëpp. Mhm. ak cant bu baax a baax ak yokkute bu baax a baax. ñi mhm. sant bu baax a baax sëñ sëñ Mbaye Thiam. Mhm. di di sant ñëpp rek di sant waa comme bergo moom ba ma jógee waa Jawartula. ñoom soxna Ami Mara ñu ngi fi soxna Aji Fay. ñoo jëwriñ soxna jigéen yi ñu ngi fa. ñi sax soxna Aji Fay sax bëggoon naa ñëw waaye daa am gànt ndax liggéey baag yooyu moo ko téye. soxna Ami Mara ñoom ñu ngi fi. ak euh, mook taal ba yëpp rek. waaw ñu sant bu baax a baax. jërëjëf sëñ Moustapha sëñ Moustapha li euh, nga baal nu. waaw euh, dëggu dëgguñu la. Euh, de section Zikroulahi ban ban ban taxawaay la ñam ban taxawaay taxawaay lan la. maanaam. Jawartulaa comme waaw ah, Jawartulaa. maanaam ban ban ban position lañ taxawee. ndax dañoo war daara dañuy jàngale ndax dañuy ban activité la ñuy def daal loolu bëgg nañ ko xam. waaw bu dee ca Bergamo ge ñu nekk moom. Hmm. bu yor ñu fa daara wax dëgg. Mm. mais dañuy dañuy chaque weer chaque weer dañuy daje. Mm. di daje euh, di di di nemm konte di saafonte di dimbalante. di di ci di ci euh, di ci wàllu côté yëpp nag di nemm konte dimbalante ci wàllu diina jéeg. Mm. ak euh, wàllu xam-xam beeg yëpp ñu ngi ciy dimbalante maanaam ku ci ku ci xaw a néew néew néew. dégg-dégg ci ci ci diina ji wala ci sa sa wàllu kii yooyu. loolu ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay kii. bu mm-hmm. ci bu passé loolu tamit bu passé daayira bi sag sag weer wi ñuy wi ñuy taxawal loolu xanaa loolu lañ fay loolu lañ fay loolu lañ fay loolu kii mm-hmm. di di di di di saafonte di dimbali di nemmeeku te xam ne day wër mm-hmm. euh, weer wu ne ñu da ñu def ko benn mbokk taaliba daje fa yenn fa ba ba kii ñu saafonteeg ñëpp rek euh, dimbalante ci ci ci taalibe ak ci ci ci sunu diine muy lislaam waaw loolu comme day méngoo rek. Euh, wa taawunu alal birri wa taqwa. waaw wala taawunu alal ismi wal udwan nga xam ne bu ma déggee li nga wax. kon mel na ne wàllu social ak. lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir waaw jàppalante ci seen biir ci ku néew doole. Hmm. moo xam ci xam-xam moo xam ci lu lu mën a doon. kon bu ma déggee li nga wax kon taxawaayu. Euh, social waaw section sikru la kon ci loolu la. ma bëgg cee dolli beneen laaj nag su ko defee mën nga cee doxal sax tàgguwaale. waaw muy ay ndaw la ay ndaw a ci nekk wala ay mag euh, ñoom ñoo ci nekk wala. waaw am na am nay ndaw. Hmm. am nay mag tamit. Hmm. ndax ku mel ne sëñ euh, Aji Fay soxna Aji Fay moom mooy wax ak sëñ hmm. Ibrahima Dieng borom këram. daanaka boo xool njabootam yëpp sëñ bi mooy seen sëriñ. mooy tutànk yu ndaw yoo xam ne fii lañ juddoo ñu bari fii lañ juddoo. ñu bari fii lañ juddoo. soxna Ami Maane tamit noonu mooy itam ak njabootam ñi ngi fi hmm. ñu di ay tout temps ñooñu ñu ngi ci biir dëkk bi xanaa nag duñu ay ay ay kii loolu waaye ñu si bari dañoo ne ci wàllu njàng meeg yooyu ci ci école yi hmm. fi lañ toll yooyu hmm. mag ñi moom mooy itam boo xool ñoo xoopu ndaw yi waaye dañ faa ne pour gunge waale ndaw yi comme que boo liggéey ndaw yi ñooy ñooy ñooñu ñooy ñooy wutu mag ñi moo tax ñu leen tàggat di ànd ak ñoom di leen dimbali di leen sunu maa ñi xam ne fii lañ juddoo nga xam ne seen dégg wala bu baax sax taxu koo leer ñoom di ak ak ak diine lislaam ak yooyu. Hmm. ak yoonu sëñ bi ni muy doxe hmm. loolu daal mooy mooy mooy mooy mooy liggéey bi waaw. waaw léegi ñi fay jàngale alxuraan. ndax mën ngaa xam seeni tur ñi jàngale alxuraan foofu ak xam-xam ak yan suur lañ koy def dafa am ñu ngeen fa délégué nga xam ne bu set lañ fay nekk wala am ñoo xam si par samedi dimanche lañ fay loolu it bëggoon nañ ci waaw loolu nag moom euh, amaguñ ca mais xale yi fay jàng si ñu ci bari ka sëñ Tuubaa ga hmm. xam ne dañuy jàngal samedi ak dimanche ñu bari fa la ñuy dem fa la ñuy dem fa la ñuy jàngee seen seen seen seen diine. seen bari. Hmm. ñu nga xam ne dañuy war a jàng arab ak ak ak ak ak ak ak ak téere sëñ bi. Hmm. yu mel ne rajo yooyu fa lañ koy jàngee. Hmm. samedi ak dimanche. fa lañ fa lañ dem di ko di ko di ko fa du tee ñun bu ñu amee daayiraat du tee ñoom bu fekkee dañoo war a jàng dañuy dañuy dañuy xaar dañuy dañuy fexe kii ba. jour bi ñuy jàngi. ñu jàngee dimanche bi ci la def daayira am na nga xam ne doon yàqal seenum njàng ci ci kër Sëñ Tuubaa ga fii hmm. ci baax na jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax waaw di euh, balaax ci jotaay bi waaye nag euh, comme ci liggéey bi la bokk waaw du mën a ñàkk kon xam naa dañ lay jox rendez-vous rek ci beneen jotaay incha allah di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee waat déwén ak jàmm te seen section boobu yàlla na ci yàlla def barke. allahumma amiin ba lu kawe njott ci li taxoon doomi sëñ Tuubaa jox leen ko. allahumma amiin kon ñu ngi lay jox dig dajee ci beneen numéro wasalaamaaleykum. wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf. mbadi laa men baa